commissariat bi ñuy ubbi tey dafa nekkoon loo xamante ni soxla askan wi la. waaye mu dëppoo tamit ak politique bi nga xamante ni son excellence monsieur président de la république Macky Sall sant nañu ko dëppoo ak jamono nag ci commissariat dafa laaj ñaar bi ci njëkk mooy mën a def rôle ngir sécurité askan wi ñu doxal ko ni mu waree bi ci topp mooy ñi nga xamante ni yoon. daf leen di topp ñu fexe ba seen àq ak seen yelleef donte dañ leen di topp ñu sàmmoo ak moom loolu nag mooy li nga xamante ni mooy gis-gis bu bees bi ñu am ci lépp loo xamante ni service de sécurité la daañu def liggéey bi ni mu waree ngir yàq-yàq bañ a am ngir sécurité mat sëkk waaye ñi nga xamante ni tamit dañ leen di topp ñu fexe ba seen àq ak seen yelleef ñu sàmmoo ak moom bu loolu weesoo damay wax ni commissariat bi ñu ngi ko tabax ci budget wu état te ni ñu ko tabaxee mi ngi tollu ci lu ëpp ñaari ñaari téeméeri million ak fukk ak juróom benn